ah euh, kon euh, monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay cher confrère laay wax. maa ngi leen di fay di leen nuyu bu baax a baax di nuyu tamit euh, le grand papis di nuyu tam madame la directrice Maymouna di nuyu tout le groupe waaw. ñu ngi lay jaajëfal ñu nga ñëw rek tey ngir fekkee kon xew-xew bi lan loolu la la lay def. waaw xam nga rituel républicain la bon mu nekk loo xam ne nag prestation de serment gis nañ ko ci ESAT. demoon naa si en 2000 boobu nag j'étais euh, lycéen xaw ma collégien ci bu Ablaye Wade bi bu 2012 aussi demoon nañ ci bu président Macky Sall en tant que reporter tey tamit euh, ñëwaat nañ ci en tant que euh, citoyen waaye tamit bokk tamit ci bokk ci benn démembrement wu état bu ñu tuddee mairie bokk tamit ci benn institution wu état bu ñu tuddee assemblée nationale en tant que député maire bu ville bu Guédiawaye waaye ñëw nañ fi tamit en tant que koo xam ne tamit dañu bokkoon si benn coalition boo xam ni bu tudd yeewee askan wi ñëw nañ fi tamit ci turu coalition bu tudd tamit Gakou 2024 ñëw nañ fi nag ci turu réew mi parce que tey bu loolu yëpp jàllee nag Sénégal tey moom moo woote tey amul opposition amul pouvoir waaw tey li fi am mooy laa république mooy réalité pouvoir moom moo am tey fii nga xam ne fii la ñu taxaw tey amul benn parti Sénégal moo woote kon nag euh, képp kuy sénégalais koo xamante ne ni république bi soxal na la réew mi soxal na la euh, soo amee possibilité ñëw fii ci centre Abdou Diouf fekkee prestation de serment wu euh, nouveau président de la république di Bassirou Diomaye Diakhar fay di ko ñaanal yàlla yéen bi oyof di ñaan yàlla tamit yaakaar bi nga xam ne moom la sénégalais am daal macha allah yaakaar daal maanaam daal baña a tas te am nañ ci yaakaar parce que yaakaar dafa fort niñ une première mu am fii ci Sénégal un opposant au premier tour loolu bëriwul lu muy am fii ci biir Afrique même dans les plus grandes démocraties sax pour nga gis ko ba day xaw a jafe kon tey daal loolu moo ñu fii waaw. sant yàlla merci beaucoup. waaw ah, dernière question gis nañu processus bi guddoon na torop processus bi bëriwoon na ay coow report kii du bokk kii day bokk ñu ñëw comme ni nga ko waxee tout à l'heure Bassirou Diomaye Faye ñu élu à 54 pour cent jugee opposition est-ce loolu nekkul par exemple que démocratie Sénégal moom moo sax te dara dootu ko mën a dindi ba nga xam ne benn coow dootul amati bu fekkee élection dafay ñëw pour le pour le futur. xam nga Senghor dafa am lu mu fi bàyyi woon ci démocratie Abdou Diouf amul woon droit delloo ko ginnaaw moo waral accord u 92 1992 ñu jóge foofu Abdou Diouf am lu mu fi bàyyi mooy alternance bu njëkk organiser ko Ablaye Wade mënul woon def dara lu dul yokk ko bi mu ñëwee. yokk presse privée yokku yeneen i parti politique yi démocratie bi ku bëgg a manifester takkal morceau xonk et cetera et cetera Macky Sall bi mu ñëwee mënul woon def dara il n'avait pas le choix allah kulli àllin bu jéemee forcé tamit pour ñu def leneen lu dul loolu tamit affaire bi day mujj rek kese mooy li fi jot a xew nii dina am ak du am Sénégal mi ngi population boo xam ni bu ñor la mûr et ñor xomm ko defee nag kenn dootu leen jàngal lu jëm ci seen wàllu droit mais aussi seen wàllu devoir processus bi comme ni nga ko waxee noonu yàgg na Sénégal nekkoon na ci incertitude mais à la coulée àli nii rek la mën a demee parce que Sénégal exemple la ci Afrique de l'Ouest Afrique yëpp mais monde bi ci boppam parce que keroog bi nga xamante ne nii Amadou Ba téléphoné na président Bassirou Diomaye Faye ñëpp dañ ne euh, l' exemple Sénégal dellu soir na loolu la ñu nit ñi xamee bu ñu defee leneen loo xam ne du loolu rek bu ko defee nag sa waay daal day xaw a euh, du ñu xamee réew mi Sénégal daal lii lañ ko xamee. monsieur le maire teg une dernière question gis nañ ne euh, coalition Diomaye Faye gannaaw bi ñu euh, gagné ñi ci bëri ci responsable yi nee nañu ñoom noppi nañu ngir liggéey ak ñëpp ndax mën nañ jàpp ne tey maire bu euh, Guédiawaye noppi na ngir ànd ak coalition ba liggéey. non xam nga man moom comme ni ma la ko waxee noonu ñun démembrement wu état lañu ñun même Macky Sall ba bi mu fiy jógee noonu noonu noonu noonu on était obligé de travailler avec l' parce que l' administration n'a rien à jëm ci wàllum politique nous sommes de d'accompagner de soutenir euh, le président euh, de la République nouvellement élu rawatina nag koo xamante ne ñi nag moom dañu nekk ci combat dugg ci kaso dugg ci lu ne bokk coalition nag boo xam ni dañu respecté ñin la charte charte Yewwi dafa ne dañuy ànd député ànd local bu présidentiel ñëwee nag chacun est libre au deuxième tour le mieux placé ñu jàppale ko deuxième tour amul kon on est obligé jàppale ko continuer di ko soutenir pour Sénégal am ndam.